ci wàllum candidature Macky Sall bi tamit foofee waxtaan nañu ko fa niki démb yéen kay gi de Le Quotidien nee na Macky Sall maanaam sujet sans tabou la Macky Sall woote nee na dialogue bi lépp mën nañu ko fay waxtaane journal bi di ko Quotidien nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi Macky Sall démb wax na ñi nga xam ne ñooy acteur politique yeeg ñi nga xam ne ñoom la séqal dialogue bi na leen lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi bu la neexee ñu daal di ko fi waxtaane bu ngeen bëggee nag am mandat mën ngeen ma koy ñaan waaye nag bu ngeen koy ñaan ci njekk ak teraanga ngeen ma koy ñaan moom Macky Sall ñu fekk ko ci journal bi di ngir nag bàyyi lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature ma dafay fekk ñu daal di ko koy ñaan ci anam boo xam ne anam bu ànd ak dal la anam boo xam ne bu ànd ak njekk ak teranga la moom président Macky Sall nee na ñi nga xam ne ñoo fi nekk naan par la force du ma bokk ci élection yi ñooñee seen xalaat rek la ñuy wax bu ñu bëggee daal ma bañ a bokk maanaam dañ ma koy ñaan te nag bu ñu ma koy ñaan ci njekk ak teranga lañ ma koy ñaan moo xool ba xam mën naa leen ko may waaw wala déet yéen kay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar nañu jamono ji nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo nga doon dialogue ca palais ba ñi nga xam ne ñooy plateforme F24 ñoom tim démb dañoo bëggoon a dialogue tuddee ko dialogue du peuple waaye nag préfet bu Ndakaaru moo leen ko mujjee tere journal bi nee na fa nga xam ne fa la ñu jot a dajee ay grenade lacrymogène moo leen fa jëlee yéenekaay gi nag nee waa F24 ñoom li ñu jàpp maanaam régime boo xam ne dictature lay jaay yéenekaay gi de la témoin xëy ñu xibaar naan ñu dialogue di président Macky Sall nee na un dialogue sans sujet tabou yéenekaay gi di réew mi quotidien di président Macky Sall nee na xam ne moo ko war ci réew mu aar mi mu protéger réew mi ñi nga xam ne ñoo na leen leer ne loolee duñu leen ci bàyyi journal bi nee na président Macky Sall démb ci dialogue bi daat nay wax ñi nga xam ne ñooy menacé attekat yi di menacé magistrat yi di leen di woo téléphone loolee président Macky Sall wax na ci ñaawlu na ñi nga xam ne ñooy jóg di jéem a taal ay kër nee na ñooñee na leen leer ne maanaam nguur gi dana jóg taxaw te suñu war a gara mooy aar askan wi te réew mi dañoo war a li nga xam ne mooy loi réew mi ak institution réew mi njiitu réew mi di président ne ñooy takk der yi ndax jamono ji nga xam ne ñoo ngi ci palais bi di dialogue am na benn xale boo xam ñi nga xam ne ñooy tiire ak di rey maanaam la ñu bokk loolu la Macky Sall wax ni ki démb journal bi di réew mi na njiitu réew mi daal na si yokku ne ñi nga xam ne ñooy takk der yi dañoo professionnel la yéen kaay gi di enquête njiitu réew mi di président Macky démb ci dialogue bi daal wax ne ñi nga xam ne ñooy faatu ci manifestation yi nga xam ne ñooy faral di ama du force de défense et de sécurité yi ñoo leen di rey waaye nag Macky Sall ñi mu a baraamu tuuma a ñi mu tuuma la mooy ñi manifester ba pare yor ay armes manifestant armé journal bi de la témoigner xëy di ñu xibaar naa ñu Idrissa Seck ni ki démb wax na ay dëgg Macky Sall ko def nga ñaari mandat Bougane Gueye Dany ci dialogue bi waaye na dialogue bi dil ay nit ñoo xam ne ñoo dajaloo di dil a kay gi de mel ni Macky di ko fa tonto nan ko fii dil amu fii fii nag waxtaan moo fi am maanaam dialogue moo a daal di waxante dëgg te amul lenn loo xam ne maanaam lu fi yees la opposition bi ñu bari ñëwuñu te nag loolee dañu see war a xalaat Khalifa Ababacar Sall daat nay wax ne élection présidentielle 2024 nañu fexe ba ñëpp bokk ci ñi nga xam ne jamono ji tëj nañ leen ci anam boo xam ne dañu doon wax seen xalaat ñooñeen nañu leen bàyyi lu jëm ci wàllum code électoral bi nañu ko modifié yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan bu ñu waxante nag bëgg a ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéen kaay bi waaye Moustapha Niass moo koy continuer ndax moom la ñu dénk comité de pilotage dialogue bi yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Cheikh Bamba Dièye moom tam ni ki démb daan nay wax Macky Sall ay dëgg yu leer nañ daan na koy wax ne Macky Sall jéego bu njëkk bi ngir jàmm am dal am ci réew mi stabilité am maanaam sa responsabilité la journal bi de Le Quotidien Macky Sall jël kàddu gi na ko en tout cas li am ba desal du ñu bàyyi kenn muy déstabiliser réew mi di salfaañi réew mi yéen kaay gi di réew mi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñuy waa PDS démb ñoom tim ñoo ngi won ci dialogue bi wax nañu ci lu jëm ci mbiri Karim Wade mi nga xam ne nee nañu mbir mu honneur la bokk ca ñàkk bokk mbir mi du foofu waa PDS ñoom nag nee nañu li ñu bëgg élection yoo xam ne yu leer lay doona waaye nag fichier électoral bi ñi nga xam ne ñooy waa union européenne ak waa union africaine ak waa états-unis daal di koy càmbara maanaam ñu andi ay réforme wala ñu supprimer li nga xam ne mooy parrainage bi yéen kaay gi di leen foo xëy duñu xibaar naan ñu njiitu mi di président Macky Sall niki démb ci dialogue bi Macky Sall dafa yoroon carotte wax ne am na ñoo xam ne maanaam dañoo choisir maanaam dañoo tànn bëgg a déstabiliser réew mi bëgg a taal réew mi loole nag seen droit la waaye na na leer na ñun tim suñu droit ak taxawaay bi ñu war a amee mooy protéger réew mi Mamadou Diop Decroix ci biir journal bi nee ko président Macky Sall ak lu mën di am ak lu bi lu ci mën di xew yow yaa responsable la ndax yow la ñu dénk kaaraange réew mi yow la ñu dénk jàmmi réew mi yéen kaay gi di enquête ñu xëy fekk fa yi nga xam ne mooy am ci Dakar lu toll ci téeméeri bus Dakar dem dikk yoo xam ne taal nañu ko gii di libération xëy di ñu xibaar naan ñu siège bu Déthié Fall bu PRP dañu ko daal di attaqué yéen kaay gii di Vox Populi gii Mari Sagna daan nay wax ne jamono ji ñi nga xam ne teg nañu leen loxo bi ñu ko xoolee ëpp na juróom ñaari téeméeri nit yéen kaay gii di libération nee na Ben Talib Sow ak Biram Souleye Diop jamono ji ñoo ngi ci garde à vue yéen kaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa maître Ciré Clédor Ly mi nga xam ne avocat bu Ousmane Sonko la daan nay ñaawlu bu ba a baax violence bi nga xam ne ak fitna bi ñuy teg client bi di Ousmane Sonko nee na tamit ay àqam ak ay yelleefam dañu ko daal di salfaañe moom maître Ciré Clédor li justice bi la tuumaal ak ñi nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yéen a kaay gi de Les Échos nee na en tout cas tey jii la ñu joxe verdict bi verdict bi nga xam ne moo dox diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum viol yéen a kaay gi nee na tey dañoo njortu ne yëngu-yëngu mën naa am ci Ndakaaru moo tax njàng meeg njàngale mi dañu koo daal di dakkal yéen a kaay gi di enquête nee na verdict boo xam ne raglu na loola journal bi di Vox Populi nee na Ousmane jii nag lay janoo ak ëllëgëm ci lu jëm ci wàllum politique a gi di Sud Quotidien nee jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr jamono ji Sénégal yéenekaay gi di L'Observateur nee na li am ba des la ñi nga xam ne ñooy takk der yi jamono ji taxaw nañu yéenekaay gi di Les Échos nee na manifestant yi ñi xam ne ñooy manifester démb dañoo attaqué am magistrat HLM Grand Yoff journal bi nee am na benn xale boo xam ne balu fetal la ñu ko dóora waaye nag décédé wu la maanaam faatuwu la ki nga xam ne moo ko tiire kookee teg nañu ko loxo journal bi di sunu lamb xëy duñu xibaar naan ñu weeru sulet 2023 lamb ji